sant yàlla rek parce que defe naa ni bi ñu duggee ci conseil municipal bi nga xamante ni moom la mairie de ville woote woon bii passé muy samedi 9 te ñu waroon a wax ci le fonds de dotation ak le fond de concours xel yëpp jàppoon nañ ni dañ doon jëm ci xeex wala xuloo wala xiiroo wala ngaayoo alhamdulilahi rabbil alamina def nañu li nga xamante ni ñun suñu xel moom la ñu jox ni moom moo baax mooy ñu ànd ak maire si la votel ko li bëgg mais gannaaw bi ñu waxtaanee ak moom ñaax ko ci direction bi nga xamante ni moom lañu bëgg mu dexe fa ànd ci ak moom mu jël ay engagement yu wér ni moom effectivement dina travailler dans le sens bi nga xamante ni moom la Thiès ak Thiès waaye bëgg te loolu mooy taxawaay diggante bi ñagas na li ko waral mooy Talla Sylla dafa def li nga xamante ni mooy bi mu jëlee mairie bi ba toog ci gannaaw bi ko sa joxe te sant nag képp koo xamante ni ñoom Talla moo bokkoon ak moom coalition muy ànd defar Thiès mu ni ànd leen ak moom ngeen liggéey Talla toog ba ci yàgg bàyyi ñu dem créer mouvement politique boo xamante ni mi ngi tudd ànd defar Thiès euh, non pas fal askan mouvement boobu mu def fal askan wi moom mu toog ba ci yàgg xëcc suñu première adjointe au maire doon responsable ci suñuy jigéen muy may mun a jeex ah ñu yaakaar ni Talla Sylla mii kat bu ñu teel te wax ak moom ñi nga xamante ni ay niti Idrissa la dina leen rocc benn par benn mu laajoon Idrissa ci boppam woo ñu cyber campus waxtaan ak ñun ni ñu bu ma kenn nettali man maa dégg mu wax ni am na sax ay conseillers yoo xamante ni moom la ñu àndal mais maa ngi leen di wax ni leen man xaw ma conseiller bu ànd ak moom ak conseiller bu ànd ak man li ma xam mooy conseiller boo xamante ni man nga àndal ku bëgg nag dem ànd ak Talla Sylla demal nga ànd ak Talla la man ma des ak yàlla lii la wax waaye. li wóor ba wóor ba nii may wax ak benn nit moo wax kàddoom ni moom yëkkati loxoom ni moom bàyyi na Idrissa léegi mi ngi ànd ak Talla muy a Dieng ñeneen ñi ci des ñëpp jàpp naa ni dañ leen di tuumaal wala dañ leen di waxal loo xamante ni ñoom du seen position tuuma nag wàllu gor la moom la Serigne Cheikh waxoon. waaw man euh, man bokk nañu ci ñi nga xamante ni njort nañu ni man dama nekk ci wetu Talla bàyyi Idrissa waaye may profiter ci occasion bi di leen sant bu baax di wax ni man Ibrahima boobu na ma ànd woon ak Idrissa démb noonu laa àndeek moom tey te noonu laa fas yéene ànd ak moom ëllëg ba ba muy dugg pale ci loolu lay liggéey ci lay dox ci lay wax ci lay consacrer sama énergie bi yëpp benn ñaareel bi ñun ak man ak ñi mel ni man dañoo jàpp ni Idrissa Seck chance la boo xamante Sénégal ming koy ñàkk ci bu fekkee toog na ba Idrissa bàyyi politique te toogul ci réew mi bokk réew mi ñun bokk nañ ci ñi gëm lool donc bu ñu ko gëmee suba ba ngoon jot ci loolu rek la ñuy liggéey te fas yéene nañ ko ci jàppale te man nag defe naa ni fii ma toog tey nekk fi premier adjoint au maire gannaaw bu ma santee yàlla ak yonent bi Idrissa laa war a sant ndax moom moo ma fi teg Talla Sylla teguma fi benn ñaareel bi bu ma demee bay dégg monsieur le maire Idrissa Seck moo tax mais bu doon man rek du ma ko dégg kon kóolute googu mu ma jox wan ma ko ba yëkkati ma ràññee ma ci sama biiri moroom jël ma teg ma foo xamante ni ñi nekk ci réew mi yëpp yu bari nañu ci bëgg a nekk te nekkuñu ci kon man bu ma delloowul mbattu ca ndaala dafa ma yëfi gor ma jàpp nag ni sa Seck gor la àndal gor lay topp gor la nekk ndax ay gor lay séq te ñun ñi nekk réew mi rawatina ñun ndaw ñi Idrissa dafa am yaakaar bu mag ci ñun moo tax mu jël maire yi teg ci ay xale yoo xamante ni dafa bëgg seen loxo set bëgg ñu àndandoo liggéey bëgg ñu def loo xamante ni ëllëg nit ñi dana leen mën a servir d'exemple te defe naa ni ci loolu lañ nekk moo tax ku ma bëgg a jël yóbbu ma feneen foo xamante ni bokk ma fa nit ku ne nag mën nga koo xalaat ndax bañuñu kuñ sédd ci gaalu xaj mais nañ fexe ba buñ ci lekk

benn réunion bi mooy gannaaw bi taala defee mu maam tudde ko fal askan bi Idrissa woo njabootam wax leen li ci xew ak li mu ci xam ñu laaj ko ca réunion ba ni ko ndax Talla mii suñu ànd ak moom dafa war a continuer wala fii lay yem mu ni Talla teg nañ ko fii ci bopp maire bi dem leen ngeen ànd ak moom ngeen liggéey bu nekkee ci lu jaadu ngeen ànd ci bu nekkul ci lu jaadu ngeen bañ ko loolu la sant conseil yépp muy conseiller biir muy yeneen conseil beneen bi mooy bi ñu jullee ba pare te war a def conseil municipal les maires dajaloo ku ne woo sa njaboot ñu daje cyber campus pour harmoniser par rapport ak position bi nga xamante ni moo fi bees ci conseil bi mais kenn neewul buñ demee foofu nañ ko bloqué mais nañu ne nañu fàttalante comme budget la ñuy woote te ay kii la après le budget primatif il y a ce qu'on appelle euh, kii euh, fonds de concours et les fonds de dotation muy xaalis boo xamante ni boo ñëwee boo ko engagé ñu génn ko na xaalis bu taxaw la ñu ni kon nañ ci def ay projet structurant ñu jóg ñu jàpp ni dañ cee war a jóg waxtaan ci te jàpp ci ñaari point yoo xamante ni Thiès gépp moom la ñuy xalaat parce que si Sylla en tant que maire de la ville bu taxawee ak ses services di dana jël vingt six millions jënd ko matériel petit matériel de nettoiement yóbbu ko ci quartier yi effectivement ci suñuy quartier la ko yóbbu mais li ñu xalaat ni mooy impact social bi mu nar am te impact social boobu bu waa koñ bay balee ko fomp ak raxas mais bu ñu paree mbalit mi fan lañ ñu koy tegal ci buntu tali bi te bu ñu ko tegalee ci buntu tali bi ñu ngi yaakaar ne oto mbalit bi war na faa jaar jël ko te am na ñaari benn tasseuse yoo xamante ni yu baax yu bees la yoo xamante ni ñu nga ca mairie ba ñu nga ca voirie ba mais seen problème problème mu pneumatique la ñu ne na jël ci xaalis boobu 10 millions defar ko ci bu ko ci defaree oto yi dugg ci quartier bi wala ñu dugal ko les grands artères bu ko defee le ramassage des ordures ménagées dina doon un souvenir beneen bi mooy l' éclairage public l' éclairage public est défectueux au sein du périmètre communal baaxul problème de contacteur la wala ñu ne la le circuit dafa périmé dafa yàqu léegi nag c'est l'occasion ñu jël ay pièces de rechange nekk ci loolu taxaw ci yitte ak soxla askan bi moo gën ñu toog fi di xuloo di politique il est nag que ni ci biir loolu il faut aussi ñu fàttali ko ni ko ah fii nga toog nag boo fi toogee ba mën a wéeru ñii nga ko bokkaloon mooy waa réew mi ak waa yeneen parti yëpp ñi defoon coalition bi ba ñëw toog ak yow ñooñu ñoo tax sa toggaay dëgër ñooñu nga war a àndal liggéey ñooñu pour intérêt Thiès te tant yaa ngi ci intérêt Thiès ñun ñëpp ñu ngi ànd ak yow mais bu intérêt Thiès jàddee rek nga jàpp. maire yi toog foofu woote contre est-ce ñu ngi waaw non maire peut-être xam nga euh, conseil municipal moom ka fa dugg ñetti baat nga benn baatu ànd ci liñ fay dogal wala baatu kontar nga ko wala baatu bokk ma ci néew ma waaw néew ma déet sa maps ci ñetti baat yooyu moo nekk foofu ndax mooy sanctionner travaux bu mën a am délibération bu ñëw looloo koy sanctionner à ce que je vois les maires n'ont pas voté contre ils se sont abstenus c'est parce que les réponses fournies par le maire n'ont pas été assez convaincantes à leur niveau mais il y a eu qui font partie de la même coalition et qui ont waaw ça montre tout l'esprit totalement libre bi nga xamante ni moo encouragé les travaux il est vrai que ni comme les maires ñoom ñëpp dans un effort unanime nee nañu ils vont aller vers la mutualisation on ose espérer que ni quoi gi am keroog dinañ ko gome ci bu ñu toogee te véritablement il faut qu'on aille vers ça nañu dajaloo nañu toog autour d'une table partager les différents problèmes les difficultés yi nga xamante ni mooy assaillir les Thiessois bu ko defee y aura une voix souveraine boo xamante ni waaw waaw mais ñu continuer ñu continuer parce que c'est une exigence di code général des collectivités locales dans son article 167 ça c'est le premier article le premier ça c'est le premier élément la mutualisation le deuxième élément mooy que nit ñi ñëpp ñoo bokk benn coalition politique ñetteel bi mooy que ni effort bi nga xamante ni Idrissa mi ngi koy def ñu ciy ànd ak moom ñi ko nangul topp nañ ci ñi ko ko nangulul ñoom it ils auront les éléments du réew mi en face d'eux parce que Idrissa est majoritaire à Thiès et c'est majorité la moom moo koy poussé à ce que ñu ñëpp ñu loo def li nga xamante ni moom la bëgg. waaw te li mu bëgg mooy que ni problème mu Thiès ñu jël ko à bras le corps sans faram. waaw mais mutualisation bi jëloon nañu engagement di tase ci biir campus bi loolu loolu waxoon nañ ko te ba pare ñu ngi koy def parce que def nañ ko am na ay réunion yoo xamante ni taal ñëw na ànd ak may mun a jën mais booba lii amagul. waaw mouvement bi mais bi mouvement bi amee ba néga ni réunion waa toj ñu fi mais bu ñu fi réunion yi taal teewul waaw kon nag dañoo jàpp ni comme loolu wax nañ ni dana am ñu ngi xaar bu réunion amee te taal la ñëwul may mun a ñëwul te ñu woote loolu mutualisation boobu chaque vendredi léegi en ce moment le parti avisera waaw waaw mais yéen mouvement Kaar bi lan lan moo leen ci tiital ndax day yaakaar ni da koo bëgg a eh, soppi aw yat jox ko nguur gi mu dal ci seen kaw wala. waxtaan moom li mu wax loolu rek lañ mën a jàpp ba mu def leneen nee na mouvement bi jëlu ko jëmale ci Idrissa jëlu ko it def ko gaal pour di ko joow jëm ci Macky Sall lii la wax waaye nag moom nee na am na droit politique am na droit mettre sur pied mouvement politique parce que leader politique loolu la wax waaye institution bi mu yor du ñu nangu mu politique ndax moom institution bi mu yor dañ ko ko dégg te niñ ko ko déggee man sama baat ak baatu ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo majoritaire ci conseil bi ñoom ñoo ànd ak taala fal ko kon ñun ñoo ko war a jàppale ba liggéey bi mu bëgg ñu ànd ci te liggéey bi mu bëgg mooy liggéey bi Idrissa waxoon Thiès waay la correcte prise en charge des besoins des population ñun boobu objectif rek la ñu yor ci biir conseil municipal bi parce que boobu objectif la di defoon credo de campagne moo doon slogan la correcte prise en charge des besoins des population et que aujourd'hui li Thiessois yu bari doon jooy ak a ñaxtu Idrissa a ngeen koy fal mais bu doon ko falee mu tay le dëkk bi dem yoona tey il a corrigé tout ça chaque vendredi il est à Thiès et il est à Thiès il est à côté de ses et il les instruit de travailler pour Thiès et les Thiessois et je pense que ni kooku c'est un acquis inestimable parce que vu son parcours et vraiment son carnet d'adresse et véritablement Thiès dina ci am lu bari ku mel ni Talla nag il gagnerait véritablement et c'est le c'est un cri du cœur à se rapprocher de Idrissa ñu àndandoo ñu liggéey. pour le bénéfice exclusif de Thiessois et de Thiès mais bu fekkee seq na beneen tànk bu dul boobu il trouvera le Rewmi en face de lui malheureusement ce sera au détriment de Thiès et de Thiessois waaw mais surtout à son détriment waaw mais surtout à détriment merci beaucoup